alors yéen ñu dem xool l'observateur li mu xëyee tey jilee euh, ci mardi bi yemook ñeenti fan ci weeru juin euh, ci xëtam mu njëkk subvention des prix de l'électricité euh, des produits pétroliers et du gaz butane l'État étouffé l'État étouffe 600 milliards de francs CFA par année maanaam at wu jot euh, l'insoutenable sacrifice pour les ménages le pouvoir tenaillé entre la tension financière euh, la pression populaire et les exigences du FMI muy FMI li ñuy sàkk ci ñoom notamment euh, subvention bi mu wàññeeku bu baax a baax il faut s'attendre à des jours difficiles am na ko wax loolu nee na boo moytuwul nag ba si di ñëw dina metti loolu ndax subvention yooyu ci énergie bi leneen itamit euh, ci muy xaaju 2024 bi ajub makaren bi ak jafe-jafe yi ñu ci nemmeeku woon fan yi la weesu Air Sénégal les détails du grand ratage am na lu ñu ci wax nouveau plan de vol bi état bi amal ngir sauver opération yi et puis révélation ci ñaari avion yi ñu affrété incidence yi am ak ci durée de euh, séjour bi ñu wax itamit euh, ci enquête sur le sale rapport du sénégalais avec l'hygiène maanaam set moom ak sénégalais yi daanaka dafa mel ni juboowuñu dara habitude yu ñu am chaque jour pour le seul mois de mai nee nañu effectué nañu lu ëpp junni euh, ci ay visites domiciliaires ak lu ëpp junni ak juróomi téeméeri infraction yu ñu constaté euh, ci wàllum euh, cet gi et puis euh, journée nationale de Set Setal à Kaolack euh, ñu ne ah asafula ngeen baal ma publicité la je suis désolée alors on parle de ce qui s'est passé au tribunal de Dakar euh, par sa petite amie benn euh, avocate l'étudiant partage leurs vidéos intimes maanaam benn étudiant bu doon génn ak benn avocate ñu bàyyente nag mu naqari ko mu dem génn ay vidéo yoo xamante ni ñoom ñoo ci nekkoon ñoom ñaar ci wàllum tàggat yaram ak équipe nationale éliminatoire mondiale 2026 le groupe de six en souffrance Mané dafa forfait Arona ak Nampali euh, Nampalis incertain Chérif Ndiaye le goût de la première lépp mi ngi ci l'observateur ñu dem xooli record moom itamit li mu xëyee tey jile vieux bu fekkente ni noppi na ci xëtamu njëkk mooy sujet bi ñu wax sànq mondial 2026 coup dur pour les Lions Sadio forfait contre RDC et Mauritanie match yi am le 6 ak le 9 juin Sanganté sous surveillance médicale Lamine Camara attendu cet après-midi les léopards de la RDC débarquent ce mardi maanaam tey jii euh, la ñuy egsi euh, mi ngi foofu noonu et puis euh, Coupe du Sénégal quart de finale euh, ce mardi Jaraaf Casa une finale avant la lettre page 3 et transfert bi un rêve devenu réalité Mbappé signe au Real pour 5 ans ñu des ci wàllu football ba tey Chérif Ndiaye attaquant la nee na je n'ai pas mangé pour venir euh, Moussa Niakhaté défenseur central on a à cœur de remporter ces matchs muy ñaari match yi war a dox diggante euh, Sénégal ak euh, RD Congo waaye tamit ak Mauritanie jàpp leen ko 6 ak 9 juin bi ñu nekk record l'observateur ñaari journaux yi groupe Futurs Médias di édité ngeen mën koo jënd lire xibaar yooyu ñu jàll tout de suite ci météo bi en express